36e édition pèlerinage marial de Popenguine mbokk yi dal leen ak jàmm si émi euh, édition bu mujj bi nga xam ne moom la nu jagleel euh, journal euh, pèlerinage bi te mu ren bi nag euh, ñu ngi ko duppee ñu ànd dox ngir Sénégalu jàmm ak Sénégalu justice muy thème boo xam ne monseigneur André Guèye mi nga xam ni moo jite évêque bu Thiès te doon jàng mees bi daal dina ci dellu si bu baax a baax ci homélie bi nga xam ne daan na ko def léegi la mu sakku nag ci sénégalais yi mooy bu kenn di denc mer ba mu jar ngay fayantoo na ñëpp jéggalaate su ko defee ñu mën a nekk ci jàmm ñu teewlu ay kàddoom. le war nañu am respect ci suñu biir waaye itam war nañu respecter suñuy loi ak suñuy réglement fii ci Sénégal nag dañoo tàmm di jalgati yoon bu weesoo loolu jàpp naa ne war nañu am respect itam ci alalu askan wi. li nga xam ne ñëpp ko bokk kon képp ku ñu dénk alalu askan wi war nga ko teg ci respect moo tax képp ku ñu dénk alalu askan wi. war nga ko teg ci jub teg ko ci dëggu jàpp naa ni sax loolu moo waral audit yi nga xam ne ñu ngi koy dégg jamono ji jàpp naa ni sax loolu moo waral audit yi nga xam ne ñu ngi koy dégg jamono ji ci loolu war nañu amal audit ci li nga xam ne moo di suñu mentalité ak suñu jikko ndax jàpp naa ni saa su jikko yooyu moo ñuy yóbbu ba ñu jalgati yoon wala ñuy luubala li nga xam ne askan bi ko moom. redevabilité est une exigence de la justice. pèlerinage marial ngin at mu jot mu yemoo ak li ñu dupe euh, fête de Pentecôte mu nekk nag loo xam ne euh, dafa am lu ko waral ana lan moo waral ñu taamu euh, lii di Popenguine muy daanaka bokk ñu di ko amal ci jamonoy Pentecôte abbé Gérard Diène nekk vicaire général cathédrale bu Dakar moom moo ñuy wax ana lan moo waral lu ni mel ñu teewlu ay kàddoom foog naa tradition la mais li ma bëgg yokk ci loolu mooy euh, il y quelques années le pape a demandé qu'on célèbre euh, le lundi de Pentecôte Marie mère de l'église kon foog naa dafa ànd complètement c'est-à-dire que apôtre yi ak maman Marie ñoo nekk ensemble di ñaan di sakku xel mu sell mi te lu dafa am solo torop li may ñaax disciple euh, fidèle yi mooy dañoo naan bâtir un Sénégal de justice et de paix que chrétien yëpp sénégalais yëpp nekk ay tabaxkat jàmm ak ay tabaxkat justice ginaaw tey ji nag dañuy delluwaat démb ci marché bi nga xam ne amoon na ndaw yi jóge fu ne ba wutali nag fi nga xam ne moom mooy euh, Popenguine dox ba agsi euh, ñu ànd nag ak coono certes waaye itam mbégte boo xam ne euh, dañuy ñëw fekk si ki nga xam ne moom mooy Mama Marie ñu ànd ci Grégoire Sombaga joie immense un plaisir inimaginable c'est ainsi que ces jeunes sont arrivés à Popenguine 52 km de marche, même pas fatigué, disent-ils. C'était une ambiance très vivante les fatigues, il a pas presque. Marie en valait la peine. On est même prêt à marcher jusqu'en On n'a pas de frontières, on ne s'arrête jamais. La bienheureuse Vierge Marie en valait la peine. On est parti avec on est très heureux on ne se fatigue vraiment beau il faut que ça continue Parmi ce beau monde, Luc, un jeune garçon de 11 ans qui, à lui, marché, il en est à sa deuxième année. Pour lui, c'est une joie et une marque d'amour envers la très sainte Vierge. Les enfants font aussi partie des marcheurs. Nous aussi, on en fait partie. Euh, à ses parents, Lucas dit Merci de m'avoir dans la ferveur et dans la joie, la foi en bandoulière, ils ont encore laissé leur marque dans ce pèlerinage. ay góor la ak kiy jigéen ñu am mbégte lool nag dox ba agsi loole itam ñu daal di ko euh, sant yàlla kii di Matar Bari dem na dékk leen euh, micro ñu teewlu seen kàddu. Zac Mbao laa jóge Cap de Biche ba fii c'est la première fois may dox nag xaw ma lan moom andi ba fii. mais su ma ma déggee ambiance birek la le fait ma dégg ambiance bi rek damay am envie dox dama damaa dox ba egsi ba fii loo xamante ni mosuma koo imaginer bi ma ñëwee sama tànk yi ñoo ngi métti mais mbégte bi ma am masuma koo am billaay damaa kontaan. ah waaw marché moom ñoo ngi jóge Mbour quoi euh, ay kii foofu ay depuis 9 heures quoi waaw ah, métti woon na nag mais dara quoi moo mari moo ñu ko jaral quoi gis nga. billaay kontaan sama xol la fees instant yi quoi waaw noonu la fa demee. amoon naa mbégte bi ndax mosuma koo def ma koy door a def may demee si liggéey bi xaw naa métti si man parce que mosuma koon def mais ma yëg si métti boobu ma yëgoon dañ na parce que ak prières yi ak maman Marie bi ñu gungee affaire bi daal neexoon na te naa yomb ci ñun tamit. Euh, vraiment yëg naa émotion bu rëy voilà parce que jógee doyen de Thiadiaye ba Popenguine c'est pas quelque chose de facile waaw ñëw juste pour visiter maman Marie voilà. waaw parce moom moo ñu ko sant moo donc jox nañu force boo xamante ne mën nañ dox ba yegg si fii ci jàmm ak ci salaam ñu ngi sant yàlla aussi di ko gërëm di ko ñaan aussi ñu koy def ay at yi at di ko fekk ay at yu bëri aussi vraiment ah métti na sonn naa tamit mais je rends grâce pèlerinage marial de Popenguine suñ ko waxee itam wax njënd mi ak njaay mi ndax euh, ñii di pèlerins yi dañuy soxla ay charité yu ñu yóbbaale ba tax na nag euh, lu ne euh, daanaka ñu ngi ko fi jaay ci lu baax muy chapelet muy ay image yoo xam ne Maman Marie moo ci nekk wala yeneen i jumtukaay loole yëpp nag jaaykat yi di ci porox ndoll daal di écouler seeni marchandise ñu di ci gis seen bopp nag bu baax a baax ñu ànd ceeg Matar Bari njaayum objet de piété nekk na activité boo xam ne day dox bu baax ci jamonoy pèlerinage marial bu Popenguine ci marché bi nga xam ne nag soriwul sanctuaire bi gis nañ fa ab affluence bu mag jaaykat yi nga xam ne ñoom ñoo fa teew ñu ngi gis seen bopp bu baax. par rapport ak euh, yeneen jours yi xam ne par exemple paroisse la lay fekk nga dem di taaba taaba ay benn benn mais ngeen moom daanaka mun naa ne ni ngay li ñu ñi di wóoree jaaykatu lekk yi daanaka noonu la ñuy wóoree objet de piété yi. jour jour événement Popenguine quoi mais tey soo nee événement Popenguine rek daanaka nit ñi lu ñuy soxlee di jënd ndékki wala ñi lu ñuy soxlee di jënd kii euh, añ ak yooyu noonu lañ lay waree. ay chapelet ay statue Vierge Marie ay croix nekk na ay objets yoo xam ne dañ ko exposé ngir servir ay junni junni pèlerin lépp mu ngi dox à merveille macha allah te yàlla na yokk. actuellement Popenguine tout marche les objets les plus chers même ça marche les objets de vingt les statuettes, tous les objets, les chaînes, tout marche à merveille. Les chapelets, le statuettes, les porte-clés, les médailles, tout marche à merveille. Machallah, que Dieu nous en garde. waaw na yàlla bu ñu cat dugg ba comme olof la mu koy waxee yàlla na yokk rek jëm kanam. bu ñu sukkandikoon rek ci jaaykat bi chapelet yi nekk na objet yi nga xam ne ñoom ñoo gën a dox njëg yi nag mu ngi dox ci diggante téeméer jàpp ñeenti téeméer. les chapelets nous sommes au milieu de chapelets les chapelets c'est la vierge c'est la fête de la fi mu nekk nii nag njaayam chapelet bi moo gën a dox. yeneen objet yaa ngi fi lu ci mel ni ay croix ay bracelet wante chapelet bi daal moom la gars yi di gën a jënd ndax dañuy soxla di julli. Euh, de cinq cent à dix mille cent à dix mille ça ki nga xam ne nag dafa ñu woon amal pèlerinage bi ànd ak njabootam dafa profiter ci occasion bi ngir am ci yooyu les objets mu ngi def tànneefam ci benn crucifix bu Jésus Christ. bi day représenté que nous sommes chrétiens nous sommes croyants enfants de Dieu enfants de Jésus enfants de Marie voilà. ah bésu rek parce que. ñëw màggal Mariama lu lu lu fort la quoi. chaque pèlerinage ñu ngi fi moom. pèlerinage Marial bu Popenguine nekk na événement boo xam ne nag day dajale ay junni junni catholique nekk na itam jamono boo xam ne njaayum objet de piété day dox bu baax. Popenguine daanaka cofeel la waaye itam li nga xam ne moom mooy seddoo dajale euh, ay xéewal daal di koy jébbal ñi nga xam ne ñooy euh, marcheurs yi ca loole nag la couleur gi duppee boppam soppey Mariama nekk ca Parcelles Assainies at mu jot ñuy def lu ni mel ren dañ ko daal di euh, tollantiwaat ñu teewlu leen. ay jeunes ñoo toog à travers leur foi ñu gis ni ñoo Popenguine nit ñi bi rek mën naa yomb foog ñu jéem a def dara waaw foog ñu jéem def dara pour gën a mën a wane suñu foi. pour gën a mun a wane suñu amour envers maman Marie donc loolu moo tax ñu initier ko depuis trois ans ñu ngi si donc bu ñu ñëwee le samedi la ñuy ñëw bu dimanche bu ñu xëyee la matin ñu joxe ndekki heure añ ñu dem dajeeg suñuy frères yi nga xamante ne Dakar la ñuy engagé cinquante deux kilomètres de marché yoo xamante ne ñëpp xam nañu day métti si moom ñu nekk ay jàmbaar bu ñu dajeek ñoom ñu yor lu ñu ñu jël lu ñu yor lépp maanaam lu ñu jot a dajale si gars yëpp ñu jël ko toog ko ay ñam. dem partage ko ñoom franchement mu nekk ay moment de bonheur ak de partage yoo xamante ne yow mu koy def maanaam ak coono boo ci mënta daj bis boo doxee ba dajeeg ñoom di leen jox ñoom ñuy lekk rek sa coono da nga koy fàtte. La marmite du pèlerin est initiée par un groupe de jeunes dénommé Sopé Mariama donc ça la troisième année consécutive qu'on organise ça juste pour faciliter les pèlerins au niveau de la nourriture pour le manger donc euh, Sopé Mariama est une association sociale qui, aide, qui donne gratuitement à manger. C'est bon, hein? voilà mbokk yi fii la ñu ndaar képpe nag numéro bu mujj bi ñu jagleel journal pèlerinage fii ci Popenguine ñu amoon mbégte lool ànd ak yéen ci les grands moments euh, donc de ce pèlerinage ñu àndoon ci ak équipe bu euh, am solo boo xam ne 7TV daf ko déployé fii ci cité religieuse bi muy Pape Mendy Grégoire Sambangom Papis Dem Cheikh Nia Matar Bari ñu amoon mbégte lool euh, ànd ceeg yéen ñu ngi leen ñaanal lekk di leen dig daje euh, déwén incha allah ñu fekkee ko euh, ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci seen teewlu ak seen ànd ak sunu ay programme ba déwén incha allah.